waaye yow si mu lu xew foo ne woon yow kan ngay laaj fi nekkoon man yow fi ma nekkoon dama la koo gën a xam nga maa xam fu fi ma nekkoon di ma laaj si mu foo nekkoon yaa ko tay tayaatoo ne xam nga fa ma nekkoon yow ñaata yoon laa la woo téléphone nangu woo jël sa téléphone. ma ne loolu man yëguma ci dara. aha yow daal yaa ngi ci sa leer semu nekk ci si lëndamam xamoo ci lu semu ne Ya gëna xam fas mu newoon gis nga sama cousine bi boko ko bàyyiwul li mala wax dina metti ci yow ben yoon duguma ci li ma la wax partager la morceau par morceau lu dara la mala waxon dina la ko waxaat dama muy vandam Tiernoris, Kona Rambo dama ne ñom ñëpp sama loxo bi lañ jaar lepp lu ne ci ci xex ci man lañ ko jëlé réglé partagé la morceau par morceau def ma ko muy dara ndax dégg nga ma bu baax waaye yow ñu jógee di naqari naqaru dara di fekk ay ragal ngeen. te na nga nag dégg foofu laa yem ak